الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الفاتح القاتم سيدنا محمد الناصر الهادي الى صراط الله المستقيم وعلى اله احق قدره ومقداره العظيم مبكي جليت يتدي نك سي غخيو فسانتيكو ci réew mi ak ci bitim réew fu ngeen mun di nekk rek maa ngi leen di boole te juróomi baat yi ma leen yàgg a te du xewi ti beeku ki sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yi muy asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi del ci kartanal yàlla di sof ak yow rek li ma sosoon ak yow ci njaboot ak yonantu bile waxaloon naa la ñetti doomam yu góor yi génn àdduna njëkk seen ak mësoor muy xaasum ak abdullahi ak ibrahim waxaloon naa doomam yu jigéen ya zeynabu mag ca ñi mayoon ko abi yi ñaari doom yam ca am umamatu ak ali xataa waxaloon naa la ruqiyatu miñ mayoon utbatu sonn ñoo njaboot mi doomi abi lahab waxoon naa la Utaybatu min mayoon Ummu Kulsoom xaraf sax defuñ ko sëy ba tas mu saaga yonent bi di goroom xas ko xottiireem yonantu bi ñaanal ko yàlla xiirtal ci moom ay ndeg menteem ci njëgam sàmma la ko gaynde lekk ci àll ba ñi jël Ruqiyatu may ko Sayyiduna Usmaan waxoon naa la ko am na ca doom mooy Abdallahi juróom benni hat tabaarakallaahu a abdullahi moomu mu am ko ca roqiyatu mi amal na ko doom doom ja mooy abdullahi mi ngi juddoo Éthiopie moom la ñuy dakkantale Ousmane naan ko abu abdillahi juróom-benni at la saña la na dund ci àdduna bi génn àdduna dafa feebaroon ganaar a ñëw cop ganaar ko cop ci bët ci ñaari bëtam ya mu génn àdduna moom mii nag moo njëkk a génn àdduna yaayam di Ruqiya benn doom boom dong la ak moom waaye nag mos naa am ëmb bu yàqu ci Ousmane ëmb bu yàqu ba mu jiitu Abdallahi mu jigi ci la door da xam juróom benn at la la dund génn Ousmane mile gannaaw si gi la ko yonantu bi may ummu kulsoom roqiyatoo ngay génne àdduna keroog xare badar wax naa la ko bi yonantu bi ñib see fekk mu génn àdduna Ousmane sang-sang jullee mu jaar fa ñaanal ko waxoon naa la ko mu remplacé ko ummu kulsoom gannaaw bi mu jooyee metti métti ne sama góore haa léegi yonantu bi dagg na yonantu bi ne ko Jibril la wax ne ko naa la may ummu kulsoom mii rakam na nga ko canee li nga canee magam ja muy ñeenti téeméer mu takku ko ndey saanam ummu kulsoom ñi ngi ko ko may xatam ñetteel ca gàddaay ga ummu kulsoom nag amut ak doom Usmaan ummu kulsoom a ngi génn àdduna bi gàddaay ga xamee juróom-ñeenti xat ci la door a génn àdduna weeru saxbaan la génn àdduna su ko defee nag keroog bañ koy gasal paxam ma Aliyu moo wàcc ca pax ma gannaaw biñ ko gasee ak Fadlu ak Usaamatu bnu Saydin ñi yor leen néew bi yonentu bi teewee na ko keroog bañ koy rob mi ngi toog bëtam yaa ngay sotti ronkañ keroog jooy na jooyu metti kala wax ne hal fiikum min ahadin lam yuqaari fi laylata fa qaala abu talhata ana qaala fa ansil fi qabriha fa nasala fi qabriha fa qabbaraha loolu tey la yonentu bi wax keroog de surqaani yu mu ne saytaane dana wóolu ca guddi dana am sécurité mooy tey guddi gi koo xam ne wóor na ko ne mooyut yàlla waay kii wàcc abu talha moo ko taxawee moo ko moo ko moo dugg ci pax mi defar ko ndey saan moo tax kam nga tey lii yonantu bi rek a ko ñeme te tamit nañ bàyyi gaaflu fekkoon ne gaaf am na am jabar mu dee amaat jabar mu dee ñoom ñaar ñëpp bokk benn ndey ak benn baay bu doon gaaf de xam ñu ne Ousmane dafa gaaf mais gaaf xamut yi fi caaxaan la rek laaj nañ ko yonantu bi mu ne su fekkee am na wóor am na de ci fas la ak ci kër su ko defee nag mu ne buy ci kër nag kër gu gaaf rek mooy gu xat sori naqaree dem fos ba bënn kenn mënu faa julli xet ga naqari waxoon naa la ko ci tafsir ba gaaf ci waruwaay mooy boo xam ne puusal mu tàkk saxaral kon bi yépp su ko defee kon nag Umu ngoog amul dom, Roqiyatoo ngoog benn biir bu yàqu la am ak benn doom ju góor ak ak Seyduna Omar sayna boo ngoog ñaari doom la am benn bu góor ak bu jigéen bu jigéen ba lañ jox Ali yu gannaaw génn àdduna Fatima muy Umaamatu kon ki ci des rek yore ngir tega waxoon na la ko mooy sayyidatuna Fatima matu mile am na ñetti doom yu góor muy Hasan Huseynu Muhassin matu mile am na ay doom yu jigéen yu limu am na ñu ne ñaar rek ñi ne ñett la ñii ne am na bu am na Roqiyatu am na Umu Kulsoom te waxoon naa la ko Umu Kulsoom lañ mayoon sayduna omar tabaarakallaahu saynabu lay mañoon abdoulaye ibnu jaafar abdoulaye ibnu jaafar nag am na ke njaboot gu limu te tuddan loolu naa njaboot googa nga xam ne xam na ko ca su ko defee nag kon tabaarakallaahu ci ngay yëgee ne ngir teel yonamtu bi daal la ca continuer ci fatima rek la soqee ko ndax fatimatu mi la ñetti doom rek la xam xasan husayn mu hasin ñaari doom yu jigéen a gën a wóor say na boog Ummu Kulsoom am na ñu ne am na Roqiya mais yu ni wérut Ummu Kulsoom la Omar denc Zeynabu la Abdu Abdoulahi ibnu Jaafar denc su ko defee moom di jëkkëram di Abdoulahi ma nga juddoo Éthiopie Jaafar ma demoon Éthiopie yóbbu yaayam wala juddoo su ko defee tamit Zeynabu mii fa la juddoo moom tamit takk na ko tasawaja bi Zeynab bint Fatim su ko defee kon nag noonu la demee Abdullah ibnu Jaafar nag am na ca njaboot gu limo limoo limoo limu am na ñuy lim xam na ca doom ju ñu tuddee Aliyu ak Hawnu ak Abbas ak Muhammad am ca Ummu Kulsoom mii nag Abdullah ibnu Jaafar jur njabootam lu bëree bari la xam nañu ko limal doom yu bari lu ca mën a xam Ummu Kulsoom mii di doomi Zeynab mi doon Abdullah ibnu Jaafar doon denci di doomi Fatima umu kulsum moomu bàyyi ta doomi bàyyi tax ma ko dencoon muy xaasum ibnu muhammad ibnu jaafar ibnu abi talib xamal na ko doom yu góor yu bari bokk na ca doom yu jigéen yi ak yu góor yu jigéen ñi bokk na ca fatima fatima mile hamsatu ibnu abdillahi ibnu ibnu subayru ibnu hawa moo ko doon denc waaye nag sët yi eh, doom yi ca soqee ko ak i sët tasaaroo nañ bàyyi ko ci àlliw mbokkam ma ummu kulsoom moom am nay doom Seynabu ca la bokk bintu Zahra waxtu Zeynab mile tabaarakallaahu kon noonu la ngir tamit demee noonu la demee de waxoon naa la ko Umu Kulsoom na ko Seyduna Aliyu dencee ne Seyduna Omar kon dencee ñëwoon naag yow ba ci soxnaa yonantu bi soxnaa yonantu bi Xadijatu waxoon naa la moo ca woon jàng nañ histoire ci place yu bëri waxoon naa la juróom-benni bant yi ko yàlla sédd ci yonent bi te bim koy denc xam na ñeen fukki at yonent bi am ñaar fukki at juróom ñi ànd ñaar fukki at juróom yu manqué ay weer gannaaw si ci la yonent bi di denc sawdatu bintu sama màgget la woon mbante rafetal ayam nga sax mu mujj may ko aishatu sawdatu mire bintu sama yonentoon ko dencee Makka gannaaw bi Xadijatu génne àdduna mu nekkoon ci roon doomi bàyyi taxam bu ñu tuddee Sakkaraan moo doon jëkkëram ibnu Omar ibnu Abdi Shamsin baayam mooy Samatu Sakkaraan mii di doomi bàyyi taxam jébbalu na ànd jabaram ji wala soxnaam si di sawdatu ci lu jiitu gàddaa yoon nañ ñoom ñaar demoon Éthiopie mu jigi tabaarakallaahu lay ñëw Madina jamon nañ Éthiopie ca gàddaay ak ñaareel ga ba ñu jël see dikk Makka nag ci xibaar yooyu nga xam ne eh, mooy hadisul xaraaniq ba ci la jëkkëram ja génn àdduna di xam naag moom doom ju tudd Abdourahman Abdourahman mile ñi ngi ko rayee ca xare bu ñuy tuddee Jalula dëkk la ci dëkk Faris yi ñii ne jëkkëram ja di sakkaraan ma nga deexee Éthiopie lu ñu mën a xam daal di sawdatu samaatu la tudd yaaya ma ngi tudd samous bintu Qaysi sawdatu mile ku baax a baax la baax ak jigéen mun ta passé maye aye fa la jigéen fa la baax ak jigéen yam abbas mu ne dafa gént mu mel ni ci nelaw yonantu bi dafa ñëw di dox ci kanamam ba hex ci moom doq ko mu solo ko jëkkëram ji mu ne ko sa gént gii su fekkee dëgg la man danaa dee yow yaa may tënji bu sa liggéey jeexee yonent bi dañ la takk waaye tabaarakallaahu nam ko waxee woon noonu la demee mu ne ko tamit géntaan naa weer wi nu ci sama kaw fekk maa ngi tëdd mu wax ko jëkkëram ji mu ne ko su fekkee li nga wax dëgg la du ma sax lu yàgg lu dul danaa dee waaye yonent bi dañ la takk kenn mu ci dara ay fan lañ ca teg chakaraan tawat yaram wu sedd di yàggut dara mu génn àdduna yonent bi takk sawdatu sanni ko buum naka nonu timit ci ngay fekk sawdatu mi ak aisha borom xam-xam yu wuutee nañ ana kan la ci yonentu bi njëkk tak waxon na la ko ñu ne aisha tu la njëkk tak waye waaye sawdatu moo njëkk a wajji si lolu moy wax ji gëna wër wér sawdatu mi ku bax la daana yonentu bi mi ngi genn aduna ci wëru wari ci la génn àdduna bi gàddaay gi amee juróom fukki at ak ñeent loolu am nañu ko wax mais wax ja gën a wér mi ngi génn àdduna ci xilaafa ak Seyduna Omar ci weeru diggi bi gàddaay gi amee fukki at ñett wax jooju moo gën a wér ki ci tegu mooy Aïchatu mooy soxna soxnaam bi mu amee juróom benni at ci lañ koy may yonantu bi ca Makka su defee nag waaye ba muy wéet ak yonantu bi am na juróom-ñeenti at ca madinatul munawwara aïchatu doomi bakar la su ko defee mi meññee ci soxnaam suñuy tuddee umu romaan zeynabu mooy turam ñii ne daxdu mooy turam mi ngi ko meññee ci soxna suñuy tuddee daxdu ñii ne umu romaan a ko jur looloo gën a wér bintu amir ibnu umayri yonantoon takk ci weeru wori bi mu amee juróom fukki at ci dundam tolloog fukki at ci ak yonantoom ma nga wéet ak moom ba tey ci weeru wari at mu njëkk ma ca gàddaay ga booba isatu juróom-ñeenti at lay am loolu mooy wax ji gën a juróom-ñeenti at lay di am ñii ne juróom at lay am yu teg ay weer lu ca mën a am daal noonu la demee léegi nag imraatun taxdubu li rasulillahi zawjiyatahu a boo demee dañuy wax ne xawlatu bintu xakam moo doon ndiig la ci digganteem diggante yonantu bi ak sawdatu moo ko daan doxal xawlatu bintu xakim moo doon ndiig la bi yonantu bëggee sawdatu mooy ndiig li bi yonantu bëggee aysatu mooy ndiig la ba sëy ba mat bam dox ko bam sotti yonantu bi door leen takk ñoom ñaar ndoor moo tax góor gu dëgër fit mooy yonantu bi piir benn weer wala benn semaine nga takk ndoor ki ñaari soxna gannaaw bi sa aaw bi génne àdduna léegi nag may nañ ko ko ñoom ñaar wax naa la sawdatu génn àdduna wax naa la tamit aïchatu satu ngi ci roon loxool yonantu bi aïchatu ku bari woon xam la solo na ñaari junne hadis ak ñaari téeméer ak fukk ci yonantu bi ku mënoon a firi alquran la ku mënoon miraas la ku mënoon a way la tuddaloon naa la dara ci ay wayam démbu ci waxtaan wi su ko defee nag jébbal nañ ko yonantu bi juróom-ñeenti atam ca gàddaay ga waxoon naa la ko sallallahu alayhi wa sallama aïsatu ngoog jigéen ju tedd ju sell la aïsatu génn na àdduna ba muy génn àdduna tabaarakallaahu am na juróom benn fukki at ak juróom benn moo gën a gudd fan yonantu bi ñetti at ba yonantu bi di génn àdduna fukki at ak juróom ñetti rek la xam waaye li ko doree fukki at ak juróom-ñett ba juróom-benn fukki at ñett mosta toog ak génn góor ci lal loolu mooy maandu loolu mooy sangew ba muy génn àdduna mi ngi tolloog bisab talaata ci la génn àdduna fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor bi gàddaay gi amee juróom fukki at ak ñett mu tolloog ci ay xatam juróom benn fukki at ak juróom mu tolloog haddadu allahu muy 66 mu la la la dund kon lépp ci yàlla rek la ko dund xadijatu moom diine la dund muy soixante quatre ans kii soixante six ans la dund su ko defee bañ koy dafa dénkaane woon avant muy génn àdduna nañ ko rob baqiya ba mu génnee àdduna abi hurayrata moo ko jullee booba marwaan a nga ca marwaan moo nekkoon amirul madina ñii ne muawiya waaye dafa tombeek booba dafa xaji hoon bàyyi abi hurayra ca dëkk ba huutal ko fa abi hurayrata moom la aishatu dénkaane woon na su ma dee na ma na ma jullee xam nga ne fekkoon ne muawiya ma nga fa wala marwaan waaye gis nga kilifa lu mu bëgg la ko lay defal tombe ku mu ci ñoom ñaar su fekkee yaa fa neexoon di amir ba fekk na nga xaji dem màkka seen gannaaw ci la aishatu génn àdduna abi hurayratu mu maandu mi xëpp hadis yi mu solo ci yonantu bi mu dénkaane woon ko jullee moo ko jullee moo tax testament def ko lu baax la nit ki dafa def testament bu ma dee nañ ma denc ci place sangam na ma diw ak diw sang na ma diw jullee xamel naa nit nangam amel nañ ma nangam waaye nag nit ñi ragal dee tax duñ def testament mais def testament taxut a dee ñàkk koo def terewut a dee moo tax kon def testament lu baax a baax la ñi bàyyi ci xel su ko defee kon nag Aïsatu ngoog ba lañ ko denc Abi Hurayra taa ko jullee ah jébbal nañ ko boromam moom kenn dong la yonentu mos a takk ci jànq bu ko mooyee doomam yëpp tabaarakallaahu soxnaam yëpp ay jeeg lañu moom kenn dong moo ciy jànq aysatu dem na sawdatu dem na xadijatu dem na yonentu bi mi ngi denc nag ku ñuy tuddee tabaarakallaahu a ah, bintu faaruux mooy xafsatu ah Aysatu mi ba muy génn àdduna ndeysaanam wax naa la ko gàddaay gi juróom fukki at juróom ñett bisab talaata la guddi lañ ko rob muy génn àdduna dafa tombee guddi la guddi gi lañ ko rob maam xalifa ngi koy wax ne du fi nat bil baqiici walaamu xannun xannun nag mooy cinquante huit laylatan wasdahat bihal arjaabu gannaaw si gi la denc nag a ah, xafsa la denc xafsatu xafsatu jëkkëram ji ko njëkkoon a denc mooy xunaysu xunaysu moo ko doon denc boo demee ci kënsu mu ne yonentu bi takk na xafsatu bintu omar al quraysiyatu al adawiya yaayam mooy saynabu bintu mas'un di ko defee nag baayam moo ko ko may sa wajaha biha abuha wa asdaqaha arbaa mi ati dirhamin bàyye ma ko ko may canee ko ñeenti téeméeri dërëm su ko defee booba ki ko njëkkoon a denc mooy xunaysu xunaysu mi ibnu xusafata assahmiyu gàddaa yoon na ànd moom ñu demoon madina jëkkër ja na àdduna gannaaw gàddaay gi gannaaw si gi nag ci la ko yonantu bi takk ca xatam ñetteel ma ca gàddaay ga Omar ibnul Xataab ku bëgg lu baax la mooy bàyyi Xafsatu ci la ñëw gaaral doomam ji Seyduna Aboubacar ne ko Aboubacar sama doom ji di Xafsatu jëkkëram ja génn na àdduna tenji na ba pare kaay ma may la ko Aboubacar tontuwut ko mu dem ci Seyduna Ousmane gaaral ko ko Seyduna Ousmane tontuwut ko mu ñëw ci yonantu bi ne ko xanaa man dafa am lu nekk ci man sama doom ji gaaral naa ko sama ñaari xàndandoor yi di Aboubacar ak Seydina Ousmane kenn tontu hut ma mu ne ko waaw ñoom ñaar ñooña danañ xam ku gën sa doom ji sa doom jooju dana xam ku leen gën moo tax Seydina tabaarakallaahu yonent bi takk Xafsatu yonent bi nag ku ne xam na ne moo gën Aboubacar yonent bi tamit tabaarakallaahu ku ne xam na ne moo gën Seydina Ousmane su ko defee nag. mu gi sax bi mu ko takkee ah Seydina Omar laaj na Aboubacar ne ko lu tax bi ma la bëggee may Hafsatu yow waxoo ci dara mu ne ko damaa déggoon yonantu sànni ci kàddu moo tax sonni son sonnuma ci soriwuma ci léegi nag yàlla dogal na Ousmane takk na Umu Kulsum gannaaw Roqiyatu te ku ne xam na ne Umu Kulsum nag moo gën Hafsatu kon nam ko waxee woon noonu la ko ko yàlla doxalee moo tax kon bi lii xewee Omar dafa mer sax bam leen ko gaarale tontuñ ko mu jël suuf di ko sotti ca boppam ba ne yàlla daal maa yaxbahu llaahu bi Omar wa ibnatihi ba'da haatha léegi daal mu ne ko ba yonent bi fasee Hafsatu nag ndeysaanam sëy ba yàggu yonent bi fase ko Omar commencé sotti boppam suuf ne man daal yàlla bëggut ma maag sama doom ji dem goroxaale yonent bi yàggu dara mu di ko fase ci la Jibril na cëpp ñëwal yonent bi ne ko inna allaha ya'muruka an turaji'a hafsata rahmatan li umar mu ne ko sa borom digal na la ga dem fayli ji hafsatu waaye def ko ngir mu yalla ko def nak moko wax digal na la ko dafa yërëm umar ndax umar dafa jeex tak ci yaw su ko defé nak ci la yonent bi ne atani jibrilu fa qaala hafsata fa innaha sawamatun qawamatun wa hiya zawjatuka fil jannah. Mata hafsatu amna lu rëy mu ne ko yonent bi na jibril ñewal na man demal nga fayli ji hafsatu xoor kat la sa soxna yeb mo ci dakk xoor ñaarel bi ko meuna nafila guddi la ñettel ba ci sa soxna yi lay bokk ci aljana bobu garat moom rek ko am daana titaru leg leg ci soxna yonent yi te lu mat titar ne yeen ñep manam yonent be len tak man nak bima ma bi takke timit fasema yalla ma fayli ci ndigalam Aysatu nag ne ko kaay ma xamal la li xew Aysatu soxnaa yonent bi dañ ko respecté woon buñ ko séenee muy dox di ñëw dañ koy tóojal ngir màggal ko Xafsatu rek moo mooy ki ko daan ki koo xam ne du ko nangoo tóojal benn bis mu ne ko waaw yow la tox sa morom yi di ma tóojal te doo ma tóojal mu ne ko loo ma xëppale ba ma lay moo mokkal nga ay hadis solo ko mën naa ay hadis man nga alquran mën naa ko su ko defee Aboubacar mooy sa baay man mii Omar mooy sama baay loo ma xëppale mu ne ko tay ma wax la ko man damay gis jibril comme ni ma lay gisee nii ma toog benn bis yonantu bi jibril ñëwal ko ma gisal ma gis ko comme ni ma la gisee nii ci laa wax jibril ne ko jibril dama lay yóbbante boo demee ci sa borom di sama borom di yàlla ne ko mu dimbale ma maa ngi koy ñaan mu wax yonantoom bii mu fayli li xafsatu xafsatu ku mën a xoor la ku mën a naafi la guddi ku baax la ku mën jokk bokk la ci simta ba ma waxee yàggu dara ci la jibril ñëw andil yonantu bi saar ya ayuhan nabi lima tuharimu ma ahalallahu lak bihi tabtaghi mardata azwajika kon fayli gi la yonantu bi fayli ci ndigalal jibril man mi amna ci participation bu maga maga mag a nak lako hafsatu neko fuma la gisati la ma defal teranga ji ta fek man ko kon gis nga day tekki na gis nga ñu ay wujji lañu won yu bëggante waye tay da nga fi gis ko xam bo fasé wujjem wujjeem mu ne ndax ma gëna yaatu waye ñom dañoo bëggante bay mayante ay ay waxoon naa la sawdatu jël na may ayam nga may ko Aïcha dañoo bëggante woon ba bu yonantu bi fasee kenn ñoom ñooy dox ba fexe yonantu bi fay lihaat ko loolu mooy wujji yu bëggante loolu la yàlla defal xafsatu xafsatu mi ku baax la ku mën a julli la ku mën a woor la ku bëgg yàlla la ku bëgg yonantu bi la xafsatu nag génn àdduna bi muy génn àdduna juróom benn fukki at la am keroog ba mu génnee àdduna la xam jeex ak ragal yàlla ak ñaw ku baax la woon mi ngi génn àdduna bi gàddaay gi amee ñeen fukki at ak benn moo tax kon moo njëkk a génn àdduna aïchatu maam xalifa ne summa maatat wal umru sittuna aman wa madal ilmu wa tuqa wa zakaau ama ihda wa arbaina xawatha jannatul xuldi xiina taaba liqaau nii mooy istuwaaru xafsatu xafsatu dem na mbiram jeex na ba muy génn àdduna xilaafaak sayduna Usmaan la booba gàddaay gi am na ñeen fukki at ak benn xafsatu ñii ne ba muy génn àdduna gàddaay gi am na ñeen fukki at ak juróom weeru woor ci la génn àdduna weeru barax lu kon ñu ne ci xilaafaak muawiya ah su boobaa nag juróom benn fukki at la am amu moom la yóbbu àllaaxira su ko defee nag ci la yonentu bi takk bokk na ci soxnaa yonentu bi ummul masakin lañ koy dàkkantelee mais turam piir mooy Seynabu jigéen gu tedd a ngi nii yonentu baa takk booba bi yonentu bi amee fanweeri weer ak benn ca madinatul munawara gannaaw bi mu gàddaayee booba lay takk zeynabu zeynabu bintu xuma xusaymata bintu ibnu haris ibnu omar ibnu abdillahi ibnu abdi manaaf ibnu hilal hilaaliya la moom mi turam dëgg mooy zeynabu waaye dañ ko doon dàkkantale umul masakin dafa mënoon a joxe ñam baax ci taalibe yi te xam nga taalibe daara yi ku baax ci ñoom ñu wutal la dàkkantal ñaari weer rek la am ci yonantu bi yonantu ko takk mu def fa ñaari weer génn àdduna waaye gis nga ñaari weer yi ci la liggéeyal yonantu bi liggéeyal taalibe yi ba taalibe yi bu tuddee ko umul masakin moom mooy ñaareeli soxna bu yonantu bi suul yonantu bi fukki soxnaak benn la am waaye nag dégg na lu mat fanweeri alxayri ak ñett la yonantu bi dégg xam na ki ñoo xam ne takk na leen wéet ak ñoom fase leen xam na ki ñoo xam ne dafa leen a takk avant ñiy dégg ñiy wéet ak ñoom mu fase leen xam na ci ñoo xam ne takk na leen wéet ak ñoom dund ak ñoom génn àdduna ba leen fa xam na ci ñoo xam ne wéet na ñoom nekk ñoom ñi génn àdduna ba fa ñaar ñoo génn àdduna ba ko fa xadijatu gannaaw bi mu àndeeg moom ñaar fukki at ak juróom ñu manqué ay weer bu ko defee ak bu muy di bint eh, di umul masakin moom ñaari weer rek la def ci yonent bi génn àdduna موتاخ مام خليفة ثم والت أم المساكين تاها بعد عبد الإله النعم الولاء هاجرت هجرتين بحرا وبرا ولها من بين الأنام سقاء لم تقم معه غير شهرين والعمر ثلاثون حق لها الرثاء لم تمت في حياته من نساء غيرها وخدي غيرها وخديجة العلياء مو خديجة رنيو جن أدونا تي لخول يونتو بي moom nak fanweeri at rek la dund gudut fan mo fatimatu sorewuñ fatimatu ñaar fukki at ak juróom-ñeent la dund moom mii nag ndeysaanam ñaa fanweeri hat rek la dund genn aduna bi waaye jigen gu bax la won jigen gu tedd la won ñepp ko wara way di martial genn na aduna gannaaw bi ma xamee fanweeri at moom ak Xadijatu rek ñoo genn aduna ci soxna bi keroog ba mu génnee àdduna xasaani nu saabit way na ko wayu rafet a rafet abdoulahi moo ko doon denc moo tax mu ne ba ba abdoulahi moo doon jëkkëram tabaarakallaahu gannaaw si gi ci la ko yonantu bi denc ñi ngi ko ba mu génnee àdduna ñi ngi ko denc baqiya lañ ko suul ah kooku mooy zeynabu ñu koy dàkkantalee ummul masakini jigéen ju baax a baax a baax la ci ah, at ci at mi ci at mi yonentu bi takk ko rek mooy daanaka ñaareelu at day bay dugg ñetteel ma ca gàddaay ga mooy fanweeri weeram yu njëkk ya booba mu ngi ci ñetteelu at ca gàddaay ga ci même at moomu ci la génn àdduna yóbbu àllaaxira fanweeri fanweeri at su ko defee génn adduna ci eh, ñi denc ko baqiya su ko defee eh, eh, ci la yonentu bi denc soxna suñuy tuddee hind hind ku baax la gàddaay na demoon Éthiopie gàddaay na ñëw Madina ba ñuy gàddaay di ñëw diina gélémam gi moo njëkk a dugg Madina hind mii la ñuy dàkkantalee umu salmata soxnaa yonantu bi yëpp moo ci xëppoon wërsëg moo tax ñoom ñëpp seen néeg yi maanaam toiture bi dafa nekkoon ay bant lañ lañ dagg teg ko ci kawam jël kobi tàndarma waaye moom néegam bi da koo teeraasoon moo xëppoon alal ci soxnaa yonantu bi dafa defaroon néegam ba mu rafet mbollem soxna yonentou bi mo ci dakon nek te lolu lu ko ko yobbo loxom dafa jotoon gannaawam way jigen gu tedd la mom nak a abi salmata ibnu abdul asad moko don doon denc ñoom ñaar ño andon demon gàddaayi jëm etiopie tabarakallah su ko mom, nak mom mu tabarakallah a mo mujji ñew jëkkër ja bu ko defé nak mom si mom moo su ko defee nag kon noonu la ko yàlla defal jëkkëram ji ku baax la woon ku tedd la woon jigéen mu génn àdduna ku rafet ku ku manoon ku manoon soxna la moo tax sax moom umu salmata ba génnee àdduna ba jëkkëram ji génnee àdduna yonantu bi ñëw di ko jaale si ne ko waxal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne ko pour lan mu ne ko yàlla fay la jaaral bi ko jox la jëkkër ji gën sa jëkkër ji mu ne ko danaa ko wax ngir yaakaar payoor ak yàlla mais duma ko waxuma ko nag ngir yaakaar ku mel ni sama jëkkër ji waxuma ko ko gën waaye ba mu ko yang jiah, ji untuk jeex yonentu bi sànni ko buub yonentoo gën jëkkëram ji musiba bu la dal lum garau garau, ko mana mën a ñàkk ak loo mën a ñàkkale xataa boo doon dox sa sa dàll bi dagg sax musiba la waxal inna lillahi wa inna rajiun da nga am yu ko gën bu sa jabar de da nga am jabar ju ko gën kon hind mi di ummu salmata abu salmata moo ko don, denc ku baax la ku manon jabar la waaye ba mu génnee àdduna yonent bi jaale si ko wax ko ko ne ko waxaat loolu ba mu ko waxee yonent bi takk na ko moom nag mi ngi génn àdduna ci xilaafa ak Muawiya ñii ne Yasid ibnu Muawiya bi gàddaay gi amee juróom-benn fukki at ak euh, ci juróom-benn fukki at ci la génn àdduna su ko defee weeru koor la génn àdduna ba muy yóbbu ba muy génn àdduna nag yóbbu na àllaaxira juróom-ñetti fukki at ak ñeent juróom-ñetti fukki at ak ñeent moom la yóbbuwaale àllaaxira kon moom mag la. مام خليفة كوي بورت لني بغدا عبد الإله قد حاز هندا أكرم الخلق المقسط المعطاء هاجرت تلك الهجرتين وجاءت آه تقدم الظعن إنه العلياء ثم ماتت بطيبة والعمر دفن دفن أكبوكو جلي موي كترفن كترا مملي يبوها الآخرة وبها غابت شمسها الحسناء كرفت الله gannaaw si gi la yonent bi denc Zeynabu Zeynabu mooy bintu Jaxsin doomi bàjjeni yonent bi la ndax Umaymatu bintu Abdul Muttalib moo ko jur moom nag ndeysaanam yonent da ko mayoon benn doxandéem mu koy tuddee Seydou suñ mbokkam nit ku ñuul la Seydou mii yonentoo ko ko mayoon ndax moom dugutotom jaam dafa ñëwoon rek ñëw ci kaw ci yonent bi nitam ñu ñëw di ko jël si mu ne leen nekk kër yonantu bi di jaam moo ma gënal ñibbi sama kër bàyyi di gor looloo taxoon yonantu bi tamit téye ko téye bu baax ba doomoo ko ne su fekkee damaa génn àdduna ñu war maa doon Seydou mi dana ma doon muy nit ku ñuul ki su fekkee dafa dee ma war koo doon danaa ko doon mais ab yonantu kenn du ko doon yonantu wax na ko nax nu laa la laa nuurasu fama tarag naaw sadaqatun ñun luñ bàyyi sarax lay doon ab yonantu kenn du ko doon léegi nag yonantu bi nag comme doomoo naa ko danaa ko may maa koy may jabar jël doomi bàjjanam may ko ko muy nit ku ñuul di ab doxandéem yonentu bi may ko doomi bàjjanam waaye nag gis nga jigéen te jigéen te jigéen ak góor fu ñuy seyee rek bu góor ga bu jigéen ga gënee xaw a yëkkatiku ci askan duñ mën a nekk ndax jigéen lu la xëppalee wan la ko léegi nag mu koy wan ne ko man Quraysiyatu pire laa yow ab doxandéem nga seen diggante daal neexut rek heure bu nekk rek ah Seydou ñëw ci yonent bi ne ko ah da nga maa baax de ba tax nga may ma sa mbokk mii di sa doomi bàjjan waaye daal sëy bi métti na man daal su su fekkoon ne man naa ko ñu xemale fii sëy bi waaye saa yu ñëwee rek yonent bi ne ko amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tuxfi fi nafsika ma llaahu mubdihi waaye demal nga téye sa soxna si waaye yore jabar yombu demal nga muñ fekk yonent bi yàlla xamal na ko ne li nga def du sotti sëy bi dana tas soxna si jàpp yedda bu paree yow laa koy may te yow taxaw nga ci grand place yu Quraysh yi ne sëy du sa doom la su boobaa nag ñu bi takk na jabari doomam te yonent bi takk na soxnaay doomam wax luñ xamut te loolu mooy li xew rek réseaux sociaux yeeg yu kenn xamut ak commencé ko tasaare bu boobaa ñëpp dem safara ñu bëri dem safara te yonent bëggul kenn demee safara ci moom yàlla ne ko dana xam de waaye man daal sëy bi mënta dem ci la ko mujj fase ba mu ko fasee mu jàpp yedd ba mu jeex jibril ñëw ne ko ca takk ga laa bàyyeekoo léegi sa doomi bàjjen ji di sëy na bu may nañ la ko tey ci juróom-ñaareelu asamaan foofu laa bàyyeekoo maa ngi la ci ndokkeel keroog bañ ko ko mayee yonantu bi jëkkëram ji donc njëkk a denc la yónni muy sëydu ne ko demal ci sëy na bu ne ko sànni naa ko buubu mu dem ba jub ko jub ko néeba rek wane gannaaw jox ko information ba sëy na bu kontaan lool bu wane gannaaw kon dang nga fa gis sëriñ boo xam ne bu takkee jabari taalibeem taalibe ba joxe fa ràlliyee ya, ba mu doxee fa nangam ak nangam way gis nga yonentou bi takke na soxna euh, yi sahabi sahabam sahabi way kerek lako gëna bëgg ba mo yobbu won information ba fofa kon nak gis nga diko yalla yàlla timit nak gis nga mom mi def li muñ ko yonentou bi tak soxnam gannaaw bi mu ko fasee te loolu la bëggoon mu muñ ko lu ko lool yàlla fayee ko saxaba yi li ñuy bëri bëri cent vingt quatre mille saxaba moom kenn kese la alquran tudd turam ceet ci alquran aboubacar ah, turam amu ci alquran sayduna omar sayduna ousman sayduna aliyu mais moom kenn di saydu nit ku ñuul la moom la alquran tudd di sahabaab yonentu alquran ne falama qada zaydun minha wataran zawajnakaha suratul lahsab boo demee da nga ko ci fekk kon loolu moom kenn kese kese moo ko am yaa ngi ko fekk ca lahsab aaya 37 boo demee da nga ko ci fekk moom kenn kese kese la yonantu bi la alquran tudd aboubacar liyaar na ko mais tudduñ ko is yaqulu li saahibi saahibi joo may aboubacar may waxu turam is yaqulu li saahibi laa taxsan inna laa maana waaye turam ñëwut de waaye tamit moom kenn kese ngay fekk mu turam nekk ci alquran kon Zeynabu bintu Jaxsin angoo ku baax la Zeynabu bintu Jaxsin mi ku ku bëri ay miracle la wu jëm yëpp ko tagg wu jëm yëpp ko fonk ku ku mbooleem soxnaa yonantu moo ci moo ci dàq jokk bokk mbooleem soxnaa yonantu bi moo ci gën a ragal yàlla mboolem soxnaa yonantu bi ñëpp a maandu mais moo ci gën a maandu mbooleem soxnaa yonantu bi moo ci gën a tabaarakallaahu mën a jaamu yàlla ndeysaanam moom mi wa makkasat saynabu inda nabi sita sinin moom nag ndeysaanam say àndam mak yonantu bi juróom benni xar rek la diire moom gàddaayoo na demoon Éthiopie gàddaay na ñëw Madina ku rafetoon la nag ba jéggi dayo ah surtout nee na man sax dama ko daan moom daal daanaa daanaa ko fiire sax ci yonantu bi ngir ak ngir ak ngir ak ngir ak taaram ku rafetoon la su ko defee nag ah surtout tagg na ko lool ñëpp ko tagg ngir mbaaxam yonantu bi dafa daan wax ne maa raaytu uthiqu fi nafsi minki keroog ba ko yonantu bi takk la wax ne ko nit ñi fi nekk tey aw ma ku ma ku ma ci ëpp confiance ci koo xam ne su ma ko joxee xibaar du senn du ko publier aw ma ci ko ëpp yaakaar yow Seydou mu ngi nit ku ñuul yaa ko doon denc demal nga waxal ma ko ko kon deke yonent bi ki mu gënoon a ëpp confiance ci nit ñi mooy nit ku ñuul mu jël secret bi dem ne ko demal waxal ma ko xibaar bi ne ko sànni naa ko buum idhab fa dhakkirihi fa dhakkirihi fa dhakkirihi idhab fadkur nii lahaa loolu la ko kon maanaam idhab fadkur nii lahaa mu ñëwal ko ba jub ko wane gannaaw ne ko yaa Saynabu abshiri fa inna rasulallahi ba'athani yadhkuruki fa farihat bi dhalika thumma qalat ma kuntu li af'ala shay'an hatta u'amira rabbi man nag du ma def dara lu dul damay def damay damay damay damay damay def listixaar damay diisu sama borom mu dem ca jàkka ja taxaw julli ñaar rakka ne yow yàlla sa yonantu bi mi ngi may labat su fekkee ne mo gën yow yalla yalla nga mako seylo su fekke ne mu denc ma gënut ci man yalla nga ma jubale fi sa ngeenel nek kon gis nga seyna na boo ak ak mbax ga seyna bongok boo ak mandu ga seyna na boo ngóog ak ragal yalla ga nit li la ko xamne ku baxa baxa bax la mom tabarakallah ku ku ku ragal yalla la su ko defee tamit moom ku mandu la waxna la ko wu jëm yëpp dañ koo dañ koo dañ koo seede dañ koo seede ay kàddu yu rafet kenn ku ci nekk rek wax na ci Seynabou kàddu yu rafet kàddu yoo xam ne tabaarakallaahu kàddu yu jubla yu maandu la muy Seynabou bintu Jaxsin mu bokk ci soxnaam ya turam dëgg mooy baratu yonent bi moo ko tuddee Seynabou yaayam mooy umaymatu bintu abdul muttalib ibnu hashim su ko defee xuutee nañ nag ci lislaam ak yaayam ndax yaayam tuub naam déet dañ caa wutee ndax yonantu bi ay bàjjanam dañ ne dañ da bàjjanam yi ña ca ña ca tuub am na lu mat ay juróom-ñetti bàjjan waaye daanaka ñaari bàjjanam ñoo tuub umay matu lañ cee wutee ko du ko defee nag kon sëy na bu mile gannaaw bi ko Seydou fase fase Seydou Seydou Seydou moo ko doon takk fase ko am ko fase ci ci la ko yonantu bi sànni buum moom nag tabaarakallaahu wax nañ ne euh, euh, sëy ba ñetti at rek la diire ñii ne ñeenti at moom la diire woon ak moom waaye lu ci mën a xam moom nag sëyam ba ak yonantu bi diire na juróom benni xat la diire loolu mooy seen sëy ba su ko defee nag sëy na bu mi ku baax a baax a baax la wu jëm yëpp dañ koo tagg ci jikko ju rafet ci mën a jaamu yàlla moom nga dégg ba mu ko bëgg yonantu bi kee nga dégg ci atte ba ne wa maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul xiyaratu loola mooy eh, ci jigéenam yooya ak la ca aju ci ci diggante moom ak zaydu mooma waxoon naa la ko ci tafsir ba gis nga sahaba yi dañoo tedd dañoo sellu xol ñoom ñu mandu lañ ñu ragal yàlla lañ ñu baax lañ tabaarakallaahu gis nga ko kenn ku ci nekk yaa ngay seede saynabu saynabu mi keroog bañ tuumaalee ishatu ak Safwaan yonentu bi dafa woo Seynabu ne ko waa xam ci wax ji mu ne ko dara laa ci xamut man daal duma duma duma bàkkaaral sama làmmiñ mbaa sama nopp bi te maa ngi lay xamal ne daal nit ku baax la seede yu rafet yi moom la wax ci moom keroog aa ah, Saynabu bintu Jaxsin mii aa ah, ah, ñëpp a ko ñëpp ko ñëpp a ko seede ñëpp ko seede seede yu rafet yi Aysatu dafa daan wax ne musuma gis ko xamee kerse ni moom ku mën a jokk bokk ni moom ku maandoo ni moom ku ragale yàlla ni moom musuma gis ku mel ni moom ku mën a jokk bokk la aïchatu moko sedel seedeel loolu Saynabu mi soxna yonentou bi yep mo ci gëna tabé tabe bu yonentou bi dund dafa len wax ne len ma ngi dem me yeen sama soxna yi xam ngeen ko ma ci ñëk fekk ci ñu na ko deeret mu nekk ci gëna gudd loxo ñi nekk fa di jema jël parce que arab dafa naqari degg at kunna yaddan la wax te loolu neexu ta degg ñu foog ñu jël seen loxo di nat yow maa la gën a guddle maa lay njëkk fekk yonentou maa la gën a guddle ndeketoo loolu tekki moy ke ci gëna tabé ci gëna mëna ñam moo tax bi mu génnee àdduna rek bu bintu Jaxsin moo ko njëkk a fekk ci soxna yi te pourtant jigéen la woon ku gàtt sax moom sax gaa yaa ko sutoon waaye ndeketoo ka ca gën a gudd loxo mooy tekki ka ca gën a tabe ci yéen gën caa mën a joxe ñam gën caa mën a maandu Saynabu mile ndeysaanam ku baax la yonentu mos na koo fase sax waaye terewut da koo mujj fayliwaat ko ngir ak mbaaxam Ah, nit ñi doon nañ wax ci moom yonentu bi ne leen baleen ko moom mii ku ku ku la ku mën a dellu ci yàlla la ci ci ci ci ci ci ci ci man koo jaamu ngir ak mbaaxam benn saaba laaj ko ne ko lan mooy awaahu mu ne mooy alqaashiqul mutadarri xanaa déggoo Ibrahima yàlla tagg na ko ca inna Ibrahima la xalimun awaahun munib yonentu bi wax loolu Aysatu mu ne laaj na Saynabu bintu Jaxsin ci samay ba ko yonentu bi laajee ci samay mbir dafa ne ko daal man damay xaar sama dégguwaay bi ak sama bët yi du wax ci loo xam ne ni sama yoon nekku ci Aysatu mu ne moom rek laa daan jéem a sut sutlanteeg ci yonantu bi waaye moom yàllaa ko musal nit ku baax la woon Aysatu mu ne maa gis ku gën a dëggu wax ak koo xam ne moo gën a ragal yàlla gën a mën a jokk mbokk gën a mën a saraxe ku mel ni bu kenn melul ni moom ci soxnaa yonantu bi moo tax bi yonantu bi génnee àdduna moo ko injek fekki gis nga yonantu beeg ni soxna yi baxé témoin yi ndan defal sen morom waye tay ji jamono bu ji wo fi woo ne ko témoyal sa morom billahi bu ko témoyé rek nga nga weddi yalla kon nak sayna na bintu ku bax la yalla defal nako lolu mom la la waxon su ko kon mbiram a ngi nonu mom sayna bu ki ci teggu nak moy Saynabu bintu Xaaris Saynabu bintu Harith bokku na ci soxnaa yonantu moom lañ daan tuddee Juwayriyatu ibnu abi al qusaiya koku nak keroog khaswatu bani Mustaliq lañ ko bokk lañ ko lañ ko lañ ko def jam ñu seddel ko bu bokku ci màngama bu bokku ci cërëb sabit ibnu qaisi mu ñew ci yonantu bi ne ko dama bëgg mu laj ko dama bëgg ñattu laj ko lam ko laj amut ci amut prix mu ñew ci yoonte bi nak dama bëgg nga dimbalé ma lu ma njotoo ndax sama baye kilifa la woon baye mo doon sangab wa haris yëpp wa bani mustalix yëpp yoonte bi ne ko waaw doo ma defal la lu gën loola kay ma njotul la def la ngay sama soxna mu ne ko d'accord na motax yoonte bi ne ko addi anki kitabatiki wa atasawujuki mu ne ko d'accord na ay sutu mu ne bama ko séenee muy dem ci yoonte bi rek la sama kalmi yaqku ndax dafa nek jigen gu gu taru la xamne ne bi dana ko def soxna legi nak mom yonent bi def nako soxna dañ ko jàppoon jam mu nek ca ngorelam ga moy moy canam ga tabarakallah mu nek soxna su bax mandu ragal yalla ku amon xorom la Mom nak. Tabarakallah. kero bañ ko yonent bi takke mu nek soxnam ña japon sen jam yep lañ wax ne ah ñin ka legi ki suñ goro ñoom ñëpp tamit goreel seen jaam ya libéré leen ñi ngi ko amee ci barkeb soxna si soxna su bari barke la koo xam ne danga ngaa xëy di jaam ngoontu jot ngay soxnaa yonantu bi ña nekkoon ay jaam yëpp ñi libéré leen ci sa barke loolu moom rek ko am kooku mooy Juwayriyatu bintu Xaaris yonantoo ko tuddee Zeynabu génn na àdduna juróom-ñaar fukki at la yóbbu àllaaxira mooy limab kun moom lafa fa yóbbu maam Khalifa ne suma maatat wala umru sabuna aman ولها كان في الجنان ثواء مم لوحنا وكذا بنت حارث قد حباها بفداها وأطلق الغرباء لون لكو يال دفال حد ميم جن عدونا ميجي تولو قادا يجي أم جروم فكي أت أك جروم بند موي هاما ناو بوجلي بوجلي ناو ناون بوكو حسابي رك مجوحلا 56 سنة تي لا يوبوها نيوم لا يوبوها لاخرا مام لا مام خليفه نذاك العام عام النوين برمسين قد اتاها من الاله قضاؤه Kamna bu subaa ci waxtu bi nag ba ma toppee ma ñëw ak yow ci ramlatu bintu abi sufyaan xam nga abi sufyaan moo gënoon a bañ yonantu bi waaye yonantu bi takk na ah, doomam ci lañ xam ne abi sufyaan lu mu yàgg-yàgg dana dugg ci diina ji yonantoo ko takk booba ma nga éthiopie bu ko defee nag najaasi yu muy burab éthiopie ba la ko yonantu bi bàyyeelee xoon moo ko ko canal moo joxe can ga lañ ca war a def yépp moo ko def gannaaw si yonantu bi na takk safiyatu ma ma ngi ko takkee fale ca sawiq ma ngi ko céetalee ko foofa saraf place bu ñu tuddee saraf moom keroog céetam nga ruuy lañ togg tabaarakallaahu boo ma toppee suba may mënatu mooy ñëw may mënatu gannaaw safiyatu may mënatu nag moo mujj ci gor yi ma door a ñëw ak yow ci taara yi maariyatu xibtiya ca taara yàlla ak rayxaanatu su ko defee noonu lay demee soxna ya jeex taara ya jeex su ko defee nag ma door a dugg yow ci yonantu bi ay ay ay ay bàyyi tëxam yonantu bi amoon na ay bàyyi su ma ci bàyyeekoo wax la bàjjanam ya danaa la wax bàyyi tax ya ñaataa ci tuub ak bàjjanam ya ñaataa ci tuub danaa la wax nijaayam ya yonent bi xamoon na ñaari nijaay ñooñu ñëpp danaa la ko jàngal danaa la ko toppal ci njàngaleem maam Khalifa ci téeréem bu ñu tuddee Mir'atu Safa bàyyiwul dara lépp dama bëgg ñu xam yonent bi buñ ko xamee rek sopp ko bu buñ ko soppee rek topp ko buñ ko toppee rek texe ndax yàlla ne wa in tuti'uhu tahtadu kon suba moy rendez-vous bi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh